mag askan wi ma yàlla booleel La bijouterie Rio Gold la bijouterie qui défraie toutes les chroniques à Rufisque bijouterie Bignop ñëpp di waxtaanee bijouterie bi xew bijouterie Rio Gold tu ci wetu mère bi ci wetu barni. Rio Gold bijouterie de création la waaw plus luy création ak collection moi minimum. grande marque tu ci le bijou dañu fay daje boo et sen vitrine da ngay jommi bijou India bijou Barheim yoyeb yëpp ay marque

nga bëgg Rio Gold de fi Rio Gold 77 533 92 87 wala 77 641 85 54 wala 77 806 05 05 wala 77 897 88 88 bijouterie Rio Gold wetu garage tu ci wetu mairie bi ngi teew ndax man maa ngi bég ndax yow li ñu boole moo bari doole ceebu neex bi sàmba ma su ma gëstoo gis la kontaan su ma la xoolee ree ceebu sàmba ma ñu yow laa bëgg mandarga yi ñu koy ràññee mooy bopp jéeg couleur sac bu rouge bu bleu bu rose am na vingt cinq kilos Sangoma am na cinquante kilos Sangoma yow mii rek yaa ma jaral dugg ci waañ ji toog bu bés bu ne am na parfumé Sangoma ak ma parfumé Sangoma am na barabara sama sang bi ci biir kër gi kenn du ko jaawale <laughs> ceebu Sangomar yow la Attention, attention, C'est Metaltech métaltech de guys, gars C'est seen jaaxare si amablement. ameublement ma matériel industriel yooyu gawagada et gàddaay jeex na une Metaltech indil na solution yu mucc Les waouh, les lépp les escalier en colimaçon des matériel industriels, bah, amablement en alu ou en fer xamal cette métaltech Metaltech moo ci ayib Les si ay délai défier toute concurrence et à des prix imbattables pour plus d'informations, contactez-nous au 77 968 89 95 ou au 77 549 93 01. C'est Metal Tech Dal, moins bourg design un métal. bees tax Al Amine boutique ay ñëw yu amul fenn ay modèle yu am classe yu touch da ngay wër la flower style dikkal fii si kër gi la maison te Al Amine boutique yamul ci loolu lépp luy broderie simple di broderie homme femme enfant su ñëwee daa ko fi fekk si nu mu gën a taaroo si neex a sol si ay prix yu amul fenn fàttewuñu nag les enfants nos petits princes et princesses dans Al amin boutique daf Jack Lel, bambinerie def si ay xeetu barbare, baax ay mignonnerie yoo dul gis feneen chez Al amin boutique ku bëgg si xeetu baax barbare, vous da ngay contacter Al amin boutique au 77 446 25 30 mbaa sax nga def doxantu bu ndaw de la environnement boutique bi que si après le rond-point clinique Nabi sur la route menant vers la station donne en face le Gelato, Cité Cypress. Si vous arrivez bien sûr des HLM de Rufus, Sinon, sous dee côté côté Sédiment du gay, rond-point Cypress bi ngay a que Gelato bi nga daal yexi si si kër la maison di chez Al Amin boutique. Mam am probabile muridin mooy sa bige Kumba fal Amat fal Sayar Njaay innakal kamal xattuk tari jay dalaw barakaatu mbokki mbok julli mbok taalibe ñu ngi ci arab bax bax di am mbégte sen ñu xamni moy xam ni sëriñ bi di wax ni rek onze billahi inna wallahi Allah barke borom Touba nga dem seen doom bay xin bay Fall seen émission bi xam etu ko sëriñ etu ko sëriñ nak di am vendredi ah 20h jàpp 21h ci télé mag bi ñu wax Galaxy TV Sénégal tay nak ñu am bëkté lool ah duggaat ci beneen kër diiné diine la ta loolu damay dem ba tubaare di cher ci muntaha Basiru di ñaan yalla sa borom mu la fi lool te wér di Moodu Mbenda Fall xalifa mam cheikh Fall yalla yàggal ko fi lool te non lay duggé rek caawan sëñ Bay Si Mansour sëñ ko Si Mansour yalla nak yalla yagal lol yàggal loolu te wér dugg Njaasaan ñaan yalla lol te wér dem yof hein seen képp koo xam ne rek kilifa di nga nek senegal ñu ñaan sa borom ñu yagal la fi lol te wér di wax nak ñu ne ci hopital yi yalla sa borom sen bop ba ñu juk del sen yiite di wax ñu tay fi di ñu leen ñaanal yalla génn fi ba duñ defati leen fay delo ci barke sallallahu alayhi te bo leen déggee nak ëttu ko di ëttu ko sëriñ ci moy émission bi mag bi di émission bi nga xam li bu waral ëttu ko sëriñ si mooy li bo gisé ni lepp diiné la di l'islam ndax yaronte bi moy garab bi té gina yaronte moy garab ki ah, day am ay balance yo yoo ku nekk ya ut fo kerlu ak kerlaan rek waye ñepp mu rek ci diiné lañ bok ba tax na Mbeykhine Baye Fall émission bi dajale xaadir ah laayeen ñeseen ñepp ñi ñëw rek euh, di waxtaan ci mag ni ba tax nak tay ñu invité ko xamni suñu sëriñ la suñu xarit la do nu sori dañ koy bàyyi rek mu mu mu présenté wu à nuyoo ak mbokk talibé rek ñu dugg ci mission bi inshallah ki la gi ñu lay siyaare. ok sëñ mbay ñu lay delloo nuyoo bi ak ziar bu baax ma sha allah. yaa shatwat allahi xulli ahdama rabbatu wa shaddidi shamla ahwamin bima الله أكبر شيف الله qaatibahu وكلما أدعى له في izzihim مهبته الحمد لله الذي إن شاء كان إن لم يشاء ولم يكن فمنتنع في الملك كيف يساء واستكم إلا جل جلال وعز الكمان يا الله يا الله يا من لعيبي شاترا سلطان كل أولياه الشيخ عبد القادر الجيلاني مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجلين دي نيو دي لين زيارة ci suñu nuyo ak suñu ziar ñu ci jital ki nga xamanteni ci moy khalifatul am li بو سيد المختار cheikh di ko ñaanal yàlla yal na yàlla wéral ay cëram yàlla yàlla mottali naal bi nga xamante ni si ni yéen ko yéen na koo àggale ci ëttug maamam Cheikh bu Mouhamed Kunta waaye tamit di nuyu ak di ziar ki nga xamante ni si tey mooy porte parole muy Cheikh Al Khalifa waaye di nuyu ki nga xam ni moo ko teewal fii ci diwaanu Tëngéej ak li ko wër muy représentant ahlul kunti muy El Hadji Cheikh Moussa di ko ñaanal yàlla mooy it yàlla na yàlla wéral cëram yàlla guddal ay fanam di nuyu mbooleem koo xamante ni si rek yaa ngi seetaan fii nga xam ni ci mooy télévision Galaxy TV mm. eh, di leen nuyu di leen ziar macha allah bu ngeen kooku Cheikh Modou Kounta la euh, di sunu xarit di sunu sëriñ di sunu kilifa waaye nag dafa ku nekk sama càmmoñ euh, di jànq bu mag moom tey moo yor animé mooy animé jotaay bi ah moom moo xam naa tënkee ñëpp ko xam dama ma leen jox surprise rek euh, wax ko mu dugg nuyoo moom it sëñ bi bisimilah. ok. auzu billaahi mina seytaani rajiim. bismillaahi rahmaani rahiim. sëñ Mbaye ñu ngi lay ziar bu baax a baax. avant tout dañuy ziar Serigne Mohamed moom Serigne Moustapha. moom Serigne Boubekaay moom Cheikh Albekaay moom Cheikh bu Mohamed. di sunu xarit di sunu Serigne. moom mi nga xam ne moom lañ ciy gunge tey. moo waral jotaay bi. waaw kay jërëjëf. waaw xam naa ne rek ndax ñun dafa am émission bi ñuy wax cëslaay li cëslaay li mooy émission yi balaa ñoo dugg ci biir émission dañuy sàkku ñu tudd yàlla tuuti te xam naa ni loolu day day dafay yàlla rek nga def ko incha allahu rabbi nga tuddal ñu yàlla tuuti rek euh, yee ñu daal ñu émission yi mën a départ. la ilaha illallah la ilaha illallah ah, anta malikul jabbar la ilaha illallah jullit defal nii subhaanallaahi walhamdulillaahi laa ilaaha illallaah anta maalikul jabbaar laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah ba'da kulli shay ay Allah laa ilaaha illallah xëyun yaa mut abada ay yàlla laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaaha illallah laa ayalla la ilaha illallah muhammadu rasulullah xayrul wara mustafa xayrul wara gën jimindeef muhammadu yow yaay rasulullah jullit bu am ci ngor lu neew Warna naa yonen yonent be jëfam ci yow nga gëm rasul yonen bu nopi won kenen du wax hmm. ndekoon mu ñaawee a nan boole xey di gontu ngir njukkal rasul daw kañ sëriñ bay lolu rek ci rasulullah loolu loolu am na solo lool ani ah, émission Mbéyakhin moom ah, buy tàmbali foo mu tudd yàlla ba noppi ndax ñun Baye Fall yi moom ci loolu la ñuy la dox waaye nag ah, ci ki may delluwaat rek mooy suñu kilifa ki mooy kilifa jataay bi tey di Cheikh Mamadou Kounta mi nga xam ni day suñu lépp maa ngi siyaar nag sama collègue soxna Adja moom mi nga xam ni tey bu ma amee lu baax lii ñëw ci sama émission te ko sëñ bi ci ay loxoom la jaar moma waye waaye Adja moom daanaka lu mbeug ci man ci moom lise ndax day sama xarit di sama lepp ñu bokk liggey bi serigne bi ma ngi lay siaré baax baax baax bëgg rek moy ñu xam kan moy Cheikh Modou Kounta ok xam naa ni lolu dana xawa jafé ndax wax ci sa bop mom day jafé lool sax waye dal li ñu mëna wax ci suñu bop moy ma ngi tuddu serigne mohammed kunta doom ci cheikh bu Bekkaay Kunta macha allah sama wayjur wu jigéen cheikh bu Bekkaay cheikh al Bekkaay cheikh bu Bekkaay cheikh al Bekkaay moo ko jur. cheikh al Bekkaay cheikh abu Mouhamed El Kunti moo ko jur cheikh bu Mouhamed Kunta maam cheikh abi Naamat El Kunti moo ko jur. bu dee ci sama wayjur wu jigéen mi nga tudd Soxna Lalla Kunta. doomu Serigne Mouhamed Kunta doomu Sidi Bekkaay Sidi Bekkaay maam Bekkaay Sidi maam Bekkaay Sidi Sidi Mokhtar maam Sidi Mokhtar maam cheikh abi Naamat El Kunti. mooy ñu ñooy samay way wayjur dëkk njaasaan ak ndànk ndax sama wàllu kër baay njaasaan la sama wàllu kër yaay ndànk la mu nekk loo xam ne si nii nag yombul lu jafe la ci kunta yàlla wërsëgal ma loolu macha allah ñu koy sant moom borom bi subhaanahu wa taala ci xéewal gi mu ñu xéewalee loolu ndax benn waykat dafa wax ni ku sañoon fu la neex ngay juddoo ku sa ñoon ku la neex doon sa maam waaye yàlla teral na leen yéen axdul konte yi mm-hmm. loolu nag suñu borom moom la neex mu defal ñu ko mm-hmm. euh, ci li ma mën a wax sañu amee daal jaamu yàlla la goo xamante ni si nii yàllaa ko sàkk jaarale ko ci ay wayjur mm-hmm. ñu tette ko yar ko ci niñ ko war a yare jaarale ko tamit ci loxo yoo xamante ni si nii loxo yu loxo yu loxo yu wóor la euh, li ma gën a touché ci laaj bi mooy kan mooy sëñ Mohamed sama baay mën naa wax ci moom ndax xam naa ko mhm. waaye xaw ma sama wayjur wu jigéen ndax bi ma gënee àddina am fukki fan ak juróom ci la génn àddina samay maam nag ñoo ma yar ci dëkk bi ñuy wax ndànk waaye ñoom it ñu yar ma yarin woo xam ni mhm. tax na jooyu ma wayjur wu jigéen mu nekk yarin woo xam ni yarin wu rafet la mhm. ba jàng jotee dugal nañ ma fa ma war a jàngee ba la ma ca war a xam ma xam ko donte ni nit mënul peek lépp mm-hmm. waaye yàlla dimbali nañu mm-hmm. ma lépp loo xam ni daal ci dagan la ak ci yu xaraam mm-hmm. am nañu si yàlla dimbali ba ñu xam ko ci jaaruwaay yi nga xamante ni si jaar nañ ci macha allah uh-huh. waaye loolu wér na nii tey loolu lépp uh, ndax lay baax ci nit booy waxtaan ci dara ñu xool ndax ca nga bokk wala bokkoo ca bu dee taalibe bi am na noo waxee waaye bu dee yaay borom am na it noo war a waxee mm-hmm. waaye nag eh, yàlla day dogal ni tey jii ñun suñuy mm-hmm. laaj mm-hmm. day yàlla moom dimbali ba ki ñu ko war a laaj lañ dogal kon dañ bëgg nag maanaam Sénégal ak bitim réew biir réew li ko wër yëpp ak tëngéej li ko wër tey ngeen toog déglu ndax kii wax day borom li ñu soxla xam waaw moo toog ni ñu jàkkaar ak moom waaye nag li ñu bëgg a xam mooy seen bi fu mu jàngee macha allah Euh, loolu moom dimbali suñu borom la. Hmm. wax naa la sànq ci biir wax man la suñuy maam ñoo ñu yar. waaye nee naa la bi jàng jotee dugal nañ ñu fi ñu jànge hmm. fa ñu jàngee nag mooy ëttu naanu jàngkaay. Hmm. muy ndànk. mu nga xam ni buñ xam naa incha allah waxtaan bi buñ ci demee ba ci biir. danañ ci mën a leeral foofu ci lu bari. waaye pour bañ pour gagner du temps. dañ la ciy wax rek ni la foofu daal fu ñuy wax ndànk kajoor hmm. mu nekk 7 kilomètres da ngay mexe hmm. nga xam ni borom dëkk ba ko sànc moo njëkk a andi tariqatul xaadiriya fii ci Sénégal moo fi njëkk a tamit moo fi njëkk a tamit kunta fii ci senegal hmm. kooku nag moo ci dëkkam fa lañ jànge nga xam ni njabootam yëpp dañ leen a jàngal ci ay daara lañ fa samp bokk na ci ki nga xamante ni si ni moom moo ñu njëkk a jàngal mi ngi génn dina fan yi yàgg yàggul muy imam Zubairu Diop ñaan yàlla yàlla na yàlla yërëm ko yàlla yeesal yërmande ci kawam moo nekkoon imaamu raati bu ndànk mm. jaar nañ ci daaraam jàng fa mm. waaye gannaaw loolu tamit jaar nañ fi nga xamante ni si ni mooy suñuy ndijaay ku ci mel ni sëriñ Naas Kunta mm. ñu gën ko xam ci Muhammad moom tamit jàng jaar nañ ci daaraam jàngee fa jaar tamit ci daaray imaam Alil Mokhtar Kunta moom tamit jaar nañ ci daaraam nab nabi fa waaye tamit jaar ci ki nga xamante ni si ni mooy eh, Seydina Omar mm. nga xam ni doom la ci jamono ji ki nga xamante ni si ni mooy imam raati bu ndànk Kajoor muy sëriñ Bouna imam nga xam ni macha allah eh, jaar nañ fa foofu it am luñ fa jël mm-hmm. gannaaw loolu nag yeneen yi ci des yëpp ñi ngi koy ñi ngi ciy góorgóorlu nag ndax xam-xam xam-xam nit mënul mënul mënul mënu koo jàngee ci kenn da ngay jël fii mm-hmm. jël fa ca des mm-hmm. ak fi actualité toll actualité toll ak fi technologique toll mm-hmm. ñu ngi dimbali suñu bopp ci lu baree bari bari ci loo xam ni ñun ñoo koy gëstul suñu bopp gannaaw bañ ko gëstoo nag bëgg ci am li ñuy leer ñu seeti borom yi xam-xam yi nga xamante ne si seeni i xel màcc na ci ñu dimbali ñu si macha allah loolu am solo am na solo waaye nag li ñuy def rek mooy que ni di siyaare Ibrahima ñaan moom suñu xarit la dëkk fii du bëggoon Nimsaat waaye ñu ngi dëkk fii ci asalam moom suñu xarit la doomu koo jaddoo am ti jaadu ñaan ñu bu baax moom suñu mag la di bu baax kàddu ñaan baaba ñaan siyaare nañ wér a a wér a yaay ñaan yàlla mu yàgg loolu koo jaddoo waaye nag fi ñuy dugg rek hmm. mooy que sëriñ bi tey noo bëgg dafay yàlla hmm. Sénégal gépp xam kan mooy borom Ndiassane hmm. xam nga li tax loolu mooy borom Ndiassane borom Ndiassane wér na te ni xam na ni ab liggéeyam lu yàlla nangu la mm-hmm. ndax euh, boo gisee bu gàmmu njaasaan jotee ñëpp xërëb xërëb duggu njaasaan mm-hmm. eh, fanaan fa ba bët set mm-hmm. maanaam lépp lu ñu amoon ko fa eh. di sàkku ñaan eh. kon kooku yàlla fay na ko wallaahi waaye day yàlla nun ñi nga xam ni nooy gone nekk ci réew mi ñu xam kan mooy borom njaasaan waaw macha allah sëñ Mbaye mm. way wi eh, li nga xam ne laaj nga ma ko question bi moom hmm. bokk na ci question yi nga xamante si daf may daf may daaneel hmm. wax naa ko sànq man ni wax ci sa bopp day jafe waaye wax ci borom Ndiassane mooy wax ci suñu bopp ndax mooy suñu maam wax nga ko sànq léegi nee naa la sama jur mooy sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha cheikh bu Bekaay cheikh bu Bekaay cheikh al Bekaay cheikh al Bekaay cheikh bu Mouhamed hmm. borom Ndiassane turam dëgg mooy cheikh Abou Mouhamedul Kuntiyu moom la tudd nit ñi nag léegi comme ni ñuy wax borom Touba borom Nangam. waaye turam dëgg mooy Cheikh Abou Mouhamed Kounta Cheikh Abou Mouhamed nag yàlla daf koo dimbali mu bokk ci famille bu riche bokk ci famille boo xamante ni si moom la ñuy wax famille Khouraïch nekk sët ci yonent yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam seen d'origine nekk Algérie ak Makka ak Medina ndax seen i maam foofu lañ bàyyi ko fa lañ jóge Euh, nit nag pour nga wax ci moom di nga wax cëslaayam mhm. maanaam wax askanam ñu xam kii mooy kan kan mooy ay maamam mhm. ndax su ma nee la Cheikh bu Mouhamed yonent yàlla Mouhamed mooy maamam rek doyul ci ay wax mhm. wax des koy layal Cheikh bu Mouhamed bàyyam mi ngi tudd Cheikh Abu Naamatal Kuntiyu Cheikh Abi Naama moomu moo sañ ci dëkk bi ñuy wax ndànk te ma wax la ko sànq borom Njaasaan mooy caatam te mu ngi judd tamit ci ginnaaw juróom bu góor ci la borom Njaasaan gane àddina ci limay ci wax waye damay wax ci cialla ci cialla léegi ba nopi Cheikh Boum Naama moomu Sidi Bekaay moko ko jur Sidi Bekaay Sidi Mouhamed moo ko jur Sidi Mouhamed Abdourahman moko ko jur Abdourahman Ahmed Saïbou Naama moo ko jur Ahmed Saïbou Naama Abdourahman moo ko jur Abdourahman El Hadj Aboubacar moo ko jur El Hadj Aboubacar ah Cheikh Sidi Ahmadul Bekaay Cheikh Sidi Ahmadul Bekaay kiko ko moy Sidi mamdil Kuntiyu amnu Ali amnu yahya amnu usman amnu yakhsh amnu Dawman amnu Shakit ah am na oqubatul mustajab oquba moomu moo tijji Afrique Tunisie fële ci xayrawaan moom moom moom moom moom moom moom oqubatul mustajab moo Afrique dégg nga moomu nag naafi moo ko jur naafi abul xaysi luqay amir umayya zarba xaaris fihir léegi nga bank say baaraam fihir muhammad abdallah abdul muttalib hasim abdul manaaf xusay kilaaf murata kaaf luway xaarif fihir moo bokk yonent yàlla Muhammad benn maam ba tey nga gis ni kon mais borom Ndiassane loolu rek doyul ci moom waaye dafa yor jikkoy maamam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa alayka bi taqwa fi kulli xaalati wala tatruk nikaan ala nazab wa xada rafa salmaanu alfaris wa anul kufri sharifun abi lahab yonent bi daf ni yow doomu aadama maa ngi lay dénk maanaam dafa dajale njabootam ni ne maa ngi leen dénk ci ragal yàlla ci anam bu mu mën di doon te ngeen bañ di wékkandiku ci sen askan waaw lu tax nga wax loolu parce que jamono toll na foo xam ni sañ Baye da nga naan man ci famille sàngam laa bokk jàpp nga jàpp ni yaa gën ñëpp ci famille sàngam laa bokk nga jàpp ni yow lépp loo xam ni lu ñu xaramal ci nit la dagan na ci yow <laughs> est-ce yaa ngi dégg li may wax donte ni nag am na yoo xam ni dinay xaraam ci nit mm-hmm. te nit ki def ko yàlla du ko toppee dara mais loolu beneen mbir la loolu fànn boobu la ñuy wax fànn xaqiiqa mm-hmm. lolu lolu fan haqiqa lañ koy tuddé manam nit ki du sa sëriñ dañuy moo tax ñuy tere naan sa sëriñ bul ko di nat toujours ci sharia ndax boko day nat toujours ci sharia bëss yow man nga ko jam ci sharia te fekk na mom mi ngi xoss ci geej gi ñu wax géeju haqiqa lo xamanteni ni yàlla moo ko xamal te yow xamoko ko tax côté bobu dañ ci téré lu bari yeen say nga gis sa sëriñ julli wul waxtu julli jot mën la jógal nga julli nga ni waaw sëriñ bi lan moo tax julliwul te xamoo ni sëriñ bi li tax wul دالون شي عبد الخاري جيلاني داليم واخون نكو ني مونيكو وحال لي هذا ترحت صلاتك مونيكو يا عبد الخاري جيلاني خنا داغا باي جولي شيخ جيلي ني لن ولم يعلم اني اصلي بما كات خولن لول موم شيخ جيلي ني لن خنا خموني يو مي ديما لاج نان من داخ جولي جو خموني يين فيغي ني ديمي باي جاب باي تاخو دي جولي من شيخ عبد الخاري جيلاني سمورو جوغينا في ديم تيا مكه فغا خامديني شي موي منبر سيدنا محمد فلاي تاخو دي جولي دوم نيو <laughs> كون غيس nga كوكو بوكو دي نات شي شريعه da ngay daanu parce que gisoo ni yow sa jëmm li muy gis rek mooy jëmmam nga gis waaye ruuxam gisoo ko mm-hmm. te fekk na ñoom dañoo naan ci naan waayi mm-hmm. moo tax ma andi loolu ngir layal li ma bëgg a wax mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ni na ngeen bañ a wekkundiko ci seen askan ñu ne lu tax mu ni xanaa gisoo leen salmaan mi nga xam ni perse la safara la daan jaamu te yàlla wàññi na ko mu ñëw bëgg ma man ma topp ci man ba tax bu ëllëgee man yoon man yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fu ma toog Salman dina ñëw toog sama wet ndax yalla moo ni ku bo len beugé ma beug len na ngeen beug yont yalla muhammad wa tamit bo len beugé am ka yu bax ak ka yu bax ben joxoñ rek la len joxoñ te moy yont yalla muhammad ngeen top ci mom lolou lañu alcorane digal yont yalla muhammad nak ni xol len ki nga xamanteni ci moy abu lahab sama doomu bàyyi tekh la waye ëllëg yowmal khiyam safara moy këram motax borom njaasaan nak ginnaw bi mu xamee ni mom yont yalla muhammad moy mama moy dretam. dafa dem xam nak lan moy jangal wala lan moy doxinu nit ki ci digganteem ak yàlla nit ki ak ci digganteem ak borom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam fexe na ba xam lan mooy charia bi fexe na tamit ba xam lan mooy sunnas yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu dëkkee ko nag di ko doxe borom Ndiassane ganee ci dëkk bu ñuy wax ndànk Kajoor en 1840 way juróom tudd Cheikh Abiyu Naamatul Kuntiyu Cheikh bu naama moomu nag mi ngi jógee Algérie ci serignam diko yabal muy Cheikh Sidou Mokhtarul kunti moko mm. yabal ni ko dama beug nga dem fañi ñuy wax Sénégal sumxaan mm. ngir nga gindi len ndax gis na ne daño nek ci lendam te yow yaay ki leen wala gindi muniko ah muniko muniko nak dama beug mm. nga duggu duggu gi ngay duggu sama borom dana la tektal wan la ana ban yoon ci nga wara jaar ngir mana jaar fi nga wara mana ag deng ginaaw dégg Cheikh bu ma duggu bi mu duggee xalwa daal di gént bi mu géntee lan la gis mooy ay xorondom yu ñuul maanaam gis melentaan yoo xamante ni si ni daal dañoo nekk ci xaajug yaramam daal koy daal di xaaj yaramam mu gis loolu daal di génn daal di cheikh man de def naa xalwa bi nga ma digal waaye nag am na lu ma gis mu doy mooy ay xorondom daal laa gis ñu yéeg sama kaw mu ne ko waaw ah mu ne ko waaw mu ne ko loolu lenn rek lay tegtale mooy sa njaboot dañuy ñuul mu ne ko sama njaboot dañuy ñuul mu ne ko waaw mu ne ko waaw ndax man ni ma mel ak sama ak ak ak ni ma ak ni ma toogee sama njaboot su ma gisee ñu ñuul baa duñu leen xeeb ku toll ni naar ndax arab wax na dëgg naar yi boo dee xool boo nekkee arab ci lu njëkk buñ nee kii kunta la sant wala nga yor ba ne sant boo ñuulee dañ lay jàppee ak jaam mm. cheikh bu naa man nag jaaxal googu la jaaxle woon mu ni waaw sama deret ni mu xeesee nii man may war a dem Sénégal war faa am njaboot yu ñuul mais sama njaboot baa su boobaa duñu leen xeeb hmm. Cheikh Sot Motaara ni ko xanaa xamoon ni sa njaboot képp ku leen xeeb bu boobaa suñu borom dana leen dana leen suufeel ba ñu mel ni su madara naa a astala saafiliin bëgg Cheikh bo la ilaha illallah la ilaha illallah imaamul dubu naa maam maam Cheikh booy borom jaasa doy nga noo bëgg Cheikh boo la ilaha illa la la ilaha illa la illa la imam wundu bu naa ma maam Cheikh boy borom jaasaan doy nga noo bëgg Cheikh boo la ilaha illa la la ilaha illa la imam wundu bu naa ma Cheikh boy la ilaha la ilaha illallah illallah imam wulubuna maam nam già sa đời ngất nhớ mập xiang vô mình buna mà mi li mai bona bon li mai bona bon ya mà đề phật tây ba adina na ma lay la la hey borom già sa đời ngất nhớ mập xiang vô lay la kha ilala lay lay la la ilala ma mulbra ma borom Njaasaan bëgg nga loo moom Cheikh bu am nga doomi ruu am nga doomi dere doomi dere bu na moom mu ñàkk solo mi sa doomi ruu la lay la la eh borom Njaasaan bëgg nga loo nga Cheikh bo lay la ka illa la lay lay la la inna nay ma wul du bu na ma njaasaan dëgganoo mam cheikh bu fi may tàmbale ba fi may jeexale lay lay la la amul benn yoon bu ma yëg ni man la eh borom njaasaan dëgganoo la ilaha illa la la ilaha illa la illa la imam wul bu na ma maam Cheikh Boy borom Ndiassane. waaw dégg nga loo. maam Cheikh bu fi may tàmbalee ba fi may jeexalee. waaw waaw. amul benn yoon bu ma yëg ni man la. ay lay la la. borom Ndiassane. dégg nga loo. Cheikh Boy lay la illallah la ilaha illallah illallah imam wul bu na Cheikh Boy borom Ndiassane oh, doy nga noonu macha mu mel ni comme li mu wax mm-hmm. nga gis ni Cheikh ma ginnaaw bi mu duggee xalwa ba mm-hmm. ba gis la mu gis góor gi nag daf ko tënkal suuf si mm-hmm. ngir mu mën a jóge Algérie ñëw senegal bi mu ñëwee fii la fekk benn buur bu ñuy wax Amari Ngoone Amari Ngoone Amari Ngoone ndee la waaw Amari Ngoone bi nga xamante ni ñëw na fekk ko fi mu ñëw nag yor fas yi naar yu góor ya gis nga ñu bari dañ lay dégg ñu naan fasu naaru góor fasu naaru góor bu ñu ko dee wax kuntaa tax mm. mooy fas wu góor wi naar wi yor parce que Cheikh Bounama bi muy jógee Algérie di ñëw dafa àndoon nag ñaari taalibeem ku ñu wax Bilal ak Maxtalla ñooñu la àndaloon yor fas yi naari góor yi ñëw bi ñëwee nag amari mosul gis fas yu ni mel ndax fas yu jógee Algérie bokkut ak fas yi jógee yi nekk Sénégal mm. bi mu ko gisee nag mu xemmeem fas yi sopp ko daani Cheikh Bounama damaa bëggoon nga lebal ma sa fas yi Cheikh ma ni ko loolu mën naa nekk mu lebal ko ko bu naa ma ni ko kañ nga may fay mu ne ko bu nawet bi wàccee ba ñu jaay li ñuy jaay dinaa la fay Cheikh ma lebal ko ci ak njëg mm. waxtu wa jot na mu ñëw nag ngir fayeeku ko xam nga buur ak doole ji mi am mu ne ko man daal fay fas yi daal mënatuma la ko fay te fas yi sànq naa leen mm. biyee nga mbul biyee nga làmbaay biyee nga kër sëriñ njagaan Cheikh naa ma ni ko ah, mu ni ko waaw Cheikh naa ma ni ko néegi ni ko léegi neel xàcc na mu ne ko waaw naar bi yow fas yoo xam ni sànq naa leen nga ñëw naan ma xàcc mu ne ko waaw nee ma sànq nee ma rek xàcc na mu ni xàcc na Cheikh naa ma ni ko waaw kay bi mu demee la woo taalibe yi Bilal ak Maxtal la ni leen dem leen ngeen daajal ma gétt yi te ngeen def ci fas te ngeen te ngeen def ci ngooñ ginnaaw bi ñu defee loolu nag mu jël kurusam daal di julli ñaari ràkk daal di tasab ginnaaw bi mu tasabee fi waxtu timis wi jàllee gée gi di jot ñu gis fas yi yëpp daal di rëcc fa ñu jógee ñëw fekk si ko fi mu nekk <laughs> bi mu defee leen nag denn jigéenam bu ñuy wax jooja jooja ndee la bi jooja mbenda bi mu gisee loolu nag ci la daw nag dem ci ki nga xamante si mooy birima nga xam ni birima jigéenam la kooku mooy jigéenam jooja moom bi mu gisee loolu daal ni ko gis naa koo xam ni de su la ñaanalee di nga moom kajoor moom bawal mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko lu nga wax lolou mu ne ko gis du mu jëflanteeg Amari mu nek batin bo xamni dama ko gis ta yow gis na ni bo ba léegi yow Birima yaa ngi bëgg moom kajoor boom bawal te muno go am carton gogo allah allah allah ya rasulullah la ilaha illallah ya rasulullah Allah, nabi Allah. desil se bu naa ma ay bëgg a way bu naa ma am na nga ne loo mën na wéeru waay man jara soolo ala ala lay lay lala ya rasulullah lay lay lala baayu baaba ak xalifa se sidil mataara ko xam senu ay mayam ba ni leen bu naa ma am na man na weeru waay man ja rasuuloo ala ala laay laay la laa oh, yaa rasuulullaah sëñ Mbaye loolu dafa mënul ñàkk parce que Serigne Ahmed ci muy waxtaan noonu kooku mooy wayjuru borom Ndiassane te wayjuru borom Ndiassane mooy Cheikh Bounama mii ma doon way donc loolu dafa mënul woon ñàkk xam naa ni mbay émission yu nek dim ko def. waaye man leer na man émission bi mel nii moom doo ko am. la tax nak moy <laughs> mom xamna ni ne moy yeungu ndax mom lañ ko tuddé hmm. ba légui man waxuguma la kan moy borom ndiasan maa ngi ci way juru borom ndiasan <laughs> parce que suma tebe wax la kan moy borom ndiasan mm-hmm. te waxuma la way juram nit ñi duñu mëna am dégg-dégg. Mm-hmm. kon dama lay wax kan mo andi borom ndiasan ba paré dog la mëna wax borom ndiasan mm-hmm. pour wax la liko waral. ginaaw lolu nak xew-xew ya ca am mu ñëw wax ko cheikh bu naama ni ko daal damaa bëgg moom kajoor moom bawal mm. moo tax moytu di tooñ tooñ mm. cheikh bu ni amari da koo lebaloon teraanga maanaam la mu ko lebaloon moom la ko fay kon naar bi du ko ñaanal mm. xaw ma nga maam déet mais wor gi mu ko wor moo cheikh am cawarte ñaanal birima xaw ma dégg nga maam déet bu ko fayoon bu fekkoon fay kon cheikh bu yonam yoonam nekkul ci laka buur laa kay nekk buur wor wor yàlla bëggul koy war Cheikh Bouna mën a xam ni kon kii nekkul moo gën ci population bi hmm. kon gis nga hmm. kon maanaam politique yàgg naa am hmm. nga gis ni maanaam nit di nga gis ni kii kat toog ci réew mii nekkul ki gën ci askan wi ndax amul ci ñoom yërmande ndax ñoom kat amul nekkul kuy dimbali néew ji doole yi kon nag gis naa ni mbay mii moo gën ci ñoom bàyyil ma ñaanal mbay ngir mbay ñu wat wattu ko wutu ko Cheikh Bounama gis googu gis-gis googu la am mm. xam ni kii daal teraanga ji mu seq ak moom ak li mu ko lebal xoolal daal li mu ko fay mm. Cheikh Bounama daal ni mbir ma da ngaa bëgg moom Kajoor moom Bawol ko waaw mu ne ko naa la ma la tey la ñuy njëkk gisee mu ne ko waaw mu ne ko sa soxna mu ne ko waaw mu ne ko dafa wannu lor tey jii si lay jur tey jii lay am tey jii lay am doom mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko mais sëñ bi loolu noo ko xamee mu ne ko te li ci gën a yéeme mooy doom bu góor lay am te man nga koy tuddee ah, benn doom doom boobu doom bu góor lay doon te man nga koy tuddee moo tax kunta lu jafeel lu yéeme la gis nga xolal moo tax dañuy wax ni seen maam ju ñuy wax uqubatul mustajaam bi ma la wax sànq ni la mooy seen maam mm-hmm. uquba moomu saxaaba la ci kunta ndax ci kanam yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam la juddu bi mu juddoo safiyatu bintu abdul muttalib daf ko leewu dem ba ci yontu yàlla ni ko ñaanalal sa rakk jii di uquba yonent bi ubbi lorom wu sell wa jël ubbi gémmiñam gu tedd ga jël lorom wu sell wa def ko ci gémmiñu uquba daan ni kii la yàlla di nangu ñaanam ba yombal xiyaam moo tax kunta kunta lépp lu mu la ñaan yàlla nangu ko moo xam muy bu góor bi mm-hmm. wala muy jigéen bi ndax lan njëriñ la moo tax moo tax Cheikh Bounama bi mu ñaanee rek yàlla daf koo nangu ci saa si xool ku ñëw ñaan loo tey mu ne ko tey jii sa soxna dina mucc dina am doom bu góor man nga koy tuddee mu ne ko baneen bi ci des mu ne ko mu ne ko tey ci guddi bu ñu demee ba fajar gi di waaj a jot dinañ gis ngelaw lu baree bari lu ñëw dina yàq yàqin gu bari nag ci tund wi bu fajar gi naalee ba bés di waaj a set di nga gis ay ñoo xam ne dañuy war ay gawar mm. dina ñëw xibaar la ni rakat birima faatu na yow yaay moom Kajoor moom Bawal la ilaha illallah amari amari na yaay moom kajoor bawal naka la fajar ga jot na ñu onak nag daal fag koy fëgg mu daal di bañ demee tuuti rek ci guddi soxna daal di mucc muy bu gor mu ne ah gi li mu waxoon benn ngi ñu tuuti ngelaw la fajar gay kare ci lañ gis war ay gawar ñëw ni ko biirima mu ne ah ñu ne ko yow la junjum bawar yow la khar. yaa moom kajoor yaa moom bawal mu ñëw ñu defal ko nag li ñuy defal buur yépp ba mu dal mu ni Cheikh bu naa ma lan laa lay xor mooy lan laa lay fay Cheikh bu naa ma ni ko lenn rek laa bëgg mooy nga dëkkal ma dëkkuwaay bi nga wutal ma pàkk boo xam ne ci lay jaamu yàlla waxu ko alal waxu ko dara biri ma ni ko déedéet damaa bëggoon nga ñëw toog sama wet di ma digal may def di ma tere may bàyyi Cheikh bu naa ma ni ko déedéet buur tàkk-tàkk la lu tàkk-tàkk gën a jëm kaw rek muy gën a mu jàpp ni moo gën te képp ku macc tàngalu buur di nga wax la neex buur te képp ku wax la neex buur di nga wax la neexul yàlla hmm. ni ko bàyyi ma rek nguutal ma baak ñoom ñaar nag ñu ànd fa ñuy ànd ba ñëw suuf suñu wax ndànk kayoor Cheikh bu naa ma gis suuf sa tibb ko daa di foon daa ni huna baldatun tayyibatun wa rabbul xafuur suuf su sell suuf su am yërmande suuf su am njéggal moo ngi nii kon man Cheikh bu naa ma fii laay dëkk foofu la dëkk nag gam fa dëkkee nag magam bu ñu wax cheikh bu cheikh bu Mouhamed Kunta jógee fi nga xam ne mooy Algérie ñëw di ko jël si bi mu ñëwee waxtaan ak moom pour jël si ko cheikh bu ni ko ba nawet bi jàll nawet bi jàllee rek ñu door a dem faf mu toog faf mu génn fa àddina moom cheikh bu Mouhamed bi mu génn àddina cheikh bu ni kon jeex na la cheikh Sidi Moxtaar Kunta yi waxoon mi ngi nii kon man fii laa war a toog ndax sama ngor mayu ma sama mag yi ma suul ko fii ba pare di delluwaat hmm. noonee nag la fi toogee moom Cheikh ma comme nag li ñu taxoon a jóg mooy Cheikh bu Mohamed mm. pour wax la toog gi nga xamante ni si moo war a Cheikh Bounama toog fii ci Sénégal moo ngi noonu waaye gindi na fi nag ñu baree bari mm. gannaaw loolu nag bi mu demee moom Cheikh Bounama ba war a génn mm. daf ni taawam Cheikh Albekaay mu ne ko sama soxna sii nga xamante ni si ni tey moom la ñuy wax Mama Koddu Diop Mama Koddu Diop Cheikh Bounama bi mu ñëwee ci réew mi li ñuy wax unité africaine wala intégration moom moo ko njëkk a def fii ci réew mi dafa ñëw xool borom yax yi rëy yi bokk ci ci tund wi mu jël ci ñoom jël ku ñuy wax Mama Codé Diop bokk ci waa kër Lajoor bokk ci waa kër euh, Lajoor ngoon Ngoone Latiir maanaam seen yax ci yax googu la bokk càllale googu dégg nga maam ma maam Coro Diouf. Hmm. bokk ci waa kër Buur Siin Kumba Ndoofeen Diouf. maam Puya Fay jël ci ñoom ak jël ki nga xam ne si moom la ñuy wax maam Roqaya Kumba Sharif. ñeent ñaa ngi noonu mais nag ki jur Cheikh bu Mohamed mooy Lajoor mooy mooy mooy mooy Mama Codé Diop. Mama Codé Diop moom nag bi mu demee bi Cheikh bu naam war a dafa woolu tawum Cheikh Al Bekaay ni sama soxna sidi di dafa wan lor danaka mi ngi toll ci ñaari weer waye tamit sama benen soxna si tamit momi dafa wan lor waye nak dama bëgg ki di makod su ëmbé na ngeen ko tuddé sama mag ji génn àddina waaye bu naa ama ki Juuf momit dafa wan lor waye mom dom ji mi am na ngeen mako tuddé donte ni xamna ni sax du gudd fan gis nga lima la wax mo tax ni ko fi banni ummihi la way kat ba lol la ko wax dal ni fi banni ummihi la don dal ni Cheikh bu kunte bi mi nek ci biiru yaayam ci la don ci la don mamam way tamit ci la don bayam Cheikh bu Muhammad, Cheikh bu Naamat al Kunti xolal jangale gogo gina nak bi ma adina mom moom Cheikh bu Muhammad, ñu tuddé ko magam ja Cheikh al bekay di yar way ci biir yar gogo mu koy yar ñu gis ni dal be solo nako ci ndax bu degna ñu wax nañ ñu li ñu ni daan nañ gis ni bu nit ñi daan lucu lu ci bari cheikh bu kunta daan won jang da daan tok ni tek waye bu nit ñi wacce day dem tok ci ron bàmmeelu way juróom bu gor teud cheikh albeka nak bi mu tëddee gënt du gënt waye gis la waye nelaw lañ ko mëna tuddé mm-hmm. way cheikh bu na ma feeñu kon ñuko beka bekkaay yaa ngi sonal sa rak ji di cheikh bu waye xana xamoni ki yaw mëno ko jangal wala bok bul ko sonal ci jang man ma koy jangalal sama ah, ah, illah mo koy jangalal bopam bokk na ci borom njaasaan nag bi muy nekk ndaw yàlla teel koo fegu lépp loo xam ne si ni lu ndaw di jaar la jaaru si wéet rek la daan def mu mosaana toog ndànkam maam xalifa wax na ni moom moo ko doon seetlu ci lu baree bari danga daan gis ni bu nit ñi dee foo di def yenn yi moom da gis day dem ca àll wa di fa wéet su demee jëli ko mu ne ko waaw mag sama tey nga maa bàyyi fa ma nekk ndax fa ma nekk moo ma gënal fii ma fi ma nekk ndax la ma fay wéttali moo tax ñu ni borom njaasaan daanul tàqali ko xaadir xadar alayhi salaam nga xam ni moo daan andil jàng maanaam xam nga yàlla da daan jibril la daan booleeg yonent yi mm-hmm. waaye xadar moom lay booleeg waliyu yàlla yi ak nitu yàlla yi moo tax borom jaasa nee na fu mu mës a toog rek xadar mu ngi fa sama wet di ma jàngal di ma xamal lu nit dul xam loo xam ni kumpa lay doon ci doomu aadama yi ginnaaw loolu nag bi nga xam ni si ni judd na nekk nag ndànk ñu yar ko ci yarin woo xamante ni si ni yarin mu mucc ayib la mm-hmm. jàngal ko comme ni mu ko jàngal ba mu xam ràññee. Mhm. ginnaaw loolu nag génn na fi benn génn bi mu génnee ci la dem Mauritanie ba muy dem Mauritanie Cheikh Sidiya la fa demoon fekk ji Cheikh Sidiya xarit la kóllëre la ci baayam Cheikh Abou Naamatul Kunti Cheikh Abou Naama dafa joxoon Cheikh Sidiya benn ndénkaane bind ci moom ni ko lii man maa la ko jox boroom dana ñëwi ci jamono bu ñëwee na ko ko jox te boobu cheikh bu naam boobu cheikh bu kunta juddoogul cheikh ci di jël ndénkaane loolu denc cheikh bu kunta kenn mësu koo wax ni ko sa baay am na ndénkaane lu mu joxe ndax cheikh ci di nee na loolu bi ma ko góor gi jox maa moom la rek ci biir néeg mu jël ko yóbbu ko Mauritanie eh, maam xalifa nee na bés cheikh bu kunta ñëw tàggu leen ni leen damaa war a génn ñu ne ko fooy jëm mu ne damay dem Mauritanie ñu ne ko loo def mu ne damay dem am ku may gane ci sama wayjur amna lu mawan ci gent dem ba fekk ki nga xam ne Cheikh sidia bi mu nuyonté ak mom ñu waxtaan ba waxtaan ba yeggal Cheikh bu Cheikh bu Cheikh bu kunda niko dafa am lu jël si mu niko lan nga jël si mu niko ko la jël si mu niko ko ban ndenkané mu niko ko li la sama wayjur joxoon ni la borom dana ko jël si tay borom mat na maa ngi nii moom jël si mu niko lan moy dalil bi wane ni yaay borom ndenkané Cheikh bu kunda niko ko jox ma ndigal ma dem jëlil ko sama bop ñu ngi toog ci ëtt ba xoolal xoolal ëdëb boobu ak yar gi am na koo xam ne bu doon moom la day ñëw poña la ñeneen la sama baay joxoon ndax am na ci provilaire waaye xoolal yar gi ma kon mooy jox ma ndigal ma dem jëli ko mu ne ko jox naa la ndigal Cheikh bu gunda jox ca yar ga ak teggin nga dox ndànk jubal sa néeg ba jël la nga xamante ni si ni mooy fa ñuy dugal téere ya daal di lemmi di lemmi di lemmi ba yot ci ñëw ni ko maa ngi nii lii mooy sama ndéggaane mu ne ko jëlal yaay borom fees nga dell sa baay waxoon na ma ni lii ku koy jël ku ku biddiwam di fenk lay doon teg nitu yàlla lay doon teg ku kenn dul téye ci jamonoom lay doon moo tax Cheikh Boukounda ñëpp a ko nanguloon ñëpp ñoo ko nanguloon mboolem koo xamante ni si nii nitu yàlla nga nga nekkoon ak moom fii ci réew mi mm-hmm. nanguloon nga Cheikh Boukounda daanoo jëf wala ngay waxta amoo ci moom ndigalam mm-hmm. ndax ñoom ñu fi nekkoon ñëpp moom Cheikh Boukounda moo leen mag mm-hmm. ñu joxoon ko cëru kilifteef moom it mu jëlaat cëru kilifteef googu seddaat leen ko fi nga bokk muy waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Bou Kounta sédd na leen booy xool taawu sëñ Modou Moustapha taawu Cheikh Bou Kounta taawu Serigne Touba sëñ Modou Moustapha Cheikh Bou Kounta may na ko doomam soxna Fatma Kounta nga dem Tiwaawoon Serigne Babacar Sy soxna Mariama Kounta Cheikh Bou Kounta jël na doomam jox ko ngir lan ngir ñoom cër kël liñ ko lebaloon ci yu baax moom it mu fay leen loola bi mu ñibbisee nag ci leen nag kon ma it jot na li sama baay doon def ma def ko sama baay dëkk fi dafa jóge Algérie ñëw Sénégal ngir gindi jaamu yàlla yi kon man it du ma dem dëkk fi sama baay dëkk damay dem def li sama baay def loolu laay dem defi ji. Mm-hmm. dem na Gàmbi def fa ëlfu lay la junniy guddi yoo xam ne fii Cheikh Bou Kounta dugg na ko xalwa foofu ca ngor gii Cheikh Bou Kounta dugg na fa xalwa ah kër Njoba ah, dëkk yu baree baree bari yoo xam ne jaar na fa nag bi mu fa jaaree nag ba ñëw fi ñuy wax njaasaan nag ci la nag dégg baat bu ni ko aljaaru xabla daar wutal dëkkandoo bala ngaa dëkk mu xam ni kon fii la ci la ñoo nag daal di sañ ci dëkk bi ñuy wax njaasaan en 1883 mu sañ ci ko nag ba tey li ci am lépp moo am ko macha allah bay loolu am na solo xam nga day matal mhm. xam kan mooy borom njaasaan dëgg la maa ngi dégg eh, ñuy wax naan xale yi judd ci ginnaaw mbay gis ñu mbay te mbay leen gëm dafa ñu gëm seex bu ñoo xam ni lépp seen lépp seex bu la. waa waaw waaw mbay loolu loolu li koy firnde. <laughs> Uh-huh. mooy Cheikh bu Kounta ginnaaw ne naa la benn génn la génn. Uh-huh. dem dem Mauritanie ñëwaat. Uh-huh. toog na fanweeri at bi mu duggee sanc Njaasaan musul génn. nekkul ni moom mooy dem di wëri taalibeem wala muy dem ci dëkk. nan leen yàlla nee na yonent bi nee na ba tuubal leen borom Ndiassane du def loolu. xoolal li gën a yéeme ci mbiru borom Ndiassane. tey demal Ndiassane ba jamono ji kañ leen gàmm woon Ndiassane mat na weer ak lu teg. Hmm. boo ko demee ba léegi di fa fekk malien yi ña fay jaay. waaw te Cheikh Bou Kounta ay taalibeem ñi si ëpp ay malien lañ. Hmm. ay burkina lañ. Hmm. dégg nga euh, Côte d'Ivoire la ñuy jóge ah, gine te ñooñu ñëpp Cheikh Bou demul ci ñoom.

xale yi judd ci ginnaaw mbay gisuñu mbay xamuñu mbay waaye dama la bëgg wax ni sax ñi <laughs> judd ci kanamu Cheikh Bou Kounta ñu jamonoonteeg ñoom mm-hmm. gisuñu ko waaye wan na fekk na leen fa fam leen fañ nekk ci leer ñu nekk ci ak lëndëm mm-hmm. moom Cheikh Bou Kounta mu génne leen fa andi leen fa defar leen te képp ku ci ñëw nag mu defar la ba noppi dalay lay bàyyiwaat nga dem yow dem defar yi waaye du la téye xam nga fii fii laa jëmoon fii maanaam dañoo judd ci ginnaawam fekk ñu ko waaye ñun dañoo defaru bay defaree te li ci yéeme mooy ku ñëw di nga gis borom Ndiassane defar la nit ba tàyyi mm-hmm. am ku ñëw bokk ci tariixa faneen mm-hmm. ñëw mu jëflanteek yow mm-hmm. nga ñëw ni ko naar bi damaa bëgg nga jox ma wérd mu mën la déedéet ñëwal ñu fasante man ak yow kóllëre fi nga jàpp fu baax la demal nga jàpp foofu <laughs> loolu loolu it dégg li ma lay wax bu baax a baax a baax a baax di gis ko xam ji am na ñu bari ñoo xam ni dañoo bokkoon ci yeneen tarixa ndax nit ñi léegi dañuy bari mbumbaay li ñu naan sëriñu bës dañuy gis tey sëñ Ahmed Kunta yor benn as somm xaalis tuuti fekk Pape Bouna mi xaritam la woon démb la woon jébbalu ci moom mu koy teral di ko këpp loolu nga gis nag ki nga xam xamante si mooy euh, papa gis loolu bokk ci beneen tarixa daal ni xaar ma dem suñu amee ndax mu taal ma ñoo daal ni suñu amee nangam ma ne ko déedéet bàyyil ma fasanteeg yow kóolóore soxla goo am ñëwal ma fajal la ko waaye fi nga jàpp fu baax la jàppal foofu borom Njaasaan noonu la meloon mbooleem loo xam ne si nii nit ki soxla na ko boo mosaan ñëw moom borom Ndiassane dana la dimbali mm-hmm. dana la fegal loolu te mësul génn Ndiassane mm-hmm. macha allah ah, moom la Serigne Touba yoo xam naa naan wérdu boo jàpp bu ne rek mu yóbbu la ba ci kanamu yàlla mm-hmm. waaye ñun teewul ay mur lañ waaye dañoo dañoo bëgg borom Ndiassane gëm ko li tax loolu mooy man gàmmu Ndiassane ren laa dem ren ji laa demul dama xaar ni mu yóbbu ndax dañoo wax ba ñu dañu lay yóbbu nga dem Ndiassane te daa war waaye dama leen a xaar ba ci jour bi ñëwuñu mu am benn programme moo demoon waaye Ndiassane ba ma fay dem wax dëgg yàlla damaa jugee Tivaouane gàmm si bas dox bëtt àll bi pour ñëw Ndiassane noonu laa ko defee Tivaouane lay jugee dox bëtt sax di ko def waaye nag euh, dañoo gis loo xam ni tamit euh, du jomb ni foofu ñu boole émission bi li tax loolu mooy dañoo gis beneen règlement intérieur bu dugg biir Ndiassane mu ñu gis Ndiassane mu xew léegi ñuy tere cóol ak yeneen ak yeneen te xam naa ni ci cóol lañ tàmbale mm-hmm. waaye dañ dem ba njaasaan tey dina fa tër tux dox mm-hmm. tamit muuru dina fa gën a dañ gën a teg réellement bopp mu mm-hmm. gën a am solo ko xam ni kuy demati njaasaan di nga fagaru fi ngay dem dëkku caaxaan dëkk bu ñuy utee yàlla waaye du bu ñuy ñàkkee yàlla léegi nag xam naa ni comme dangaa toog te bokk ci yëf yi te nag dégg naa sax ñu ne ma yaay borom yëf yi ndax loolu yow ci sa domaine la. mooy que ni am na looy lu njaasaan di bañ. mooy ci wàll indi ay bagages yoo xam ni bokk na xaadar. ndax ne du yow rek du du du njaasaan rek fépp la dangay gis foo xam ne léegi gars yi tàmbali nañoo yàq maam tabala. li tax ñu yàq mooy da ngay ku yore guitare ci biir tabala. piano ci tabala. indi ay mbalax lépp maam ay li ñu ko waxee sax ay ay cung ah, mbëng mbëng. maam yoo xam ne ci yeneen la bokkoon ñu koy gis feneen waaye dañ ko gis tey muy dugg ci ay tabala léegi nag buñ gisoo loolu ñu dañ am mbégte bu baax a baax yàlla xam ne ni waxtaan naa ci bu yàggul dara rek mais dañ boo yow tey règlement boobu nan mu def ba tey mu taxaw règlement bi tënkuwul ci charia ak sunna hmm. dégg naa la sànq ci say biiri wax xam nga hmm. wax dafa doy waar hmm. te am na nit ni muy waxee nga am noo ko tontoo ñu déggee ko geneen dégg-dégg. xam nga boo nee njaasaan sax dinañ dem bañ fay tere tox. am na ku koy dégg day jàpp ni tox dafa xaram te tox dafa am ñaari façon tox yu am. tox kii tox tox wi di ko tàqalikook sagom boobu mooy beneen fàndu tox wa. nga xam ni boobu charia nanguwu ko. muy bëgguma tudd tur wa. waaw waaw ah, man de bàyyi fa laa muy yàmbaa yi. waaw yooyu moom njaasaan da koy bañ. képp kuñ gis ku ko fay def it daneen la teg ci yoon mm-hmm. waaye nag bu dee tox poon mm-hmm. ñoom ay naar lañ ah. te loolu dagan na mm-hmm. donte ni am na ñu koy xaraamal waaye ba léegi nii mënuñoo andil aaya boo xam ni ci alxuraan yàlla danal la tox poon xaraam na kon boobu faaw leeral ko parce boo nee tox rek njaasante nañ ko bañi am na ku koy dégg daan waaw gis nga am na ku fa toogoon sax ku tudd Mouhamed Kunta wax nañ ni tox xaraam na te weddiwu ko man man li daa mat a leeral kon benn baa ngoog bi njaasaan lañ fay tere lépp génnul sharia hmm. waaye da nga wax lu am solo muy tabala hmm. yi nga niren ni ren jël nañ ci matukaay yu am solo hmm. te yàlla jaarale ko ci sama jëmm ji xeebu ji macha allah loolu day wane ne nekk ci dëgg rek moo am solo ndax sama jëmm ju ji du man kii tere ak kii kii kii dagana ak kii xaraamal waaye su ma ba naan lii baaxul mag ñi man kon mag ñi xam nañ ni dëgg rek am solo man ba ma yagut kon su ma ñëwee naan nañ ko man ñi fekk si ma ci kon xam nañu li ma nekk mooy dëgg dinaay faral di dégg am ñu naan ma di may woo téléphone naan ma Mouhamed waaw moytul te moytul internet bi moytul nanga ma ni waaw ndax ñiy wax lii dañ maa gën a bëgg samay kilifa man samay kilifa bu dee bëgg xam naa ne ñoom ñoom ñoo ma gën a bëgg ku may bëgg hmm. waaw maa wax lii bu dee kilifteef it ñoom ñoo am nañu fulay fayda goo xam ni mhm. lépp lu ñu gis loo xam ni maa ngi koy def te baaxul danañ ma ko tere waaw te mësugumaa dégg ko xam ni kilifa la ci man woo ma téléphone mhm. d'ailleurs li nga wax ni ci affaire u mhm. dama cay déggante ki ma ci war a déggal muy jëwrin bi muy anaatu sur rasul muy muy ki nga xam ne mooy porte parole xalifa bi muy sëriñ xalifa bi xamante si ni waxtaan nañ ci lu yaaroo lu yaatoo yaatu mu ne ma reen incha allah dinañ ci jël métikaay donte ni doon nañ ci bàyyi xel waaye nak ren moom dinañ ci baye xel bu baax a baax ginnaaw loolu nag ci lañ tarixa bi di tarixatul xaadiriya Cheikh Abdul khadir jilani bokku na ci ki ñeuk andi ay tabala ñu koy tëgg waaye moom Cheikh Jëli lu jitu muy ñëw fekkon na tabala ñu ko daan doxal tabala teug nañ ko xare badar tabala teug nañ ko xare badar tabala teug nañ ko bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam di jóge Màkka di ñëw madinatul munawwara ay hafsa ak yaay aisha tok nañ ci eut yonent yàlla muhammad di fa teug tabala Mhm. Seydina Aboubacar Saddiq ak Seydina Omar. Mhm. ñëw fekk yonent yàlla Muhammad ci biir ni ko waaw yaay xaf sa ak yaay Aysa ñoo ngi tëgg tabale ci biir kër gi. Mhm. yonent yàlla Muhammad xool Aboubacar Saddiq ni ko daxuma ya Aboubacar fa innaha muid ni ko bàyyi leen ñu tëgg tey jii bisu feet la. motax ñun tabala sunna la luñ teug ci kanam yonent bi te yonent bi téré wuko yonent bi ndax dina gis ay soxnaam ñi def lu jaadul wala lu rafetul ñukay téré waye ginnaw bi nga xamanteni ni si ni téré na leen lolé mu leen téré nga gis ni nak kon da ngay xamni sunna la ginnaw bi mu nekké sunna nga gis nak ño xamni judd top nak li nga xamanteni ni moy sow bis bi so top li nga xamni moy sow bis bi ya fi xew ba tax na tay ngay jël li nga xamni moy ay sabar mm. ay piano te ñu bari ñukay def ñu siiw lañ mm. ñoo xam ne dañ leen di bàyyi xel ñoom nag ñu jël di boole leneen loo xam ni bokkuñu si am na ku ni ma waaw suñu amet mm-hmm. waaw ndax tabale yi nga naan da nga xaraamal tabale yi ay këll lañ ko xamee woon mm-hmm. te léegi tabale ñuy tëgg ay weñ la mm-hmm. ma ne ko ah mu ni ma waaw ma ne ko waaw léegi loo ci bëgg a jublu ma ne ko da bëgg ma xam ne ay weñ daal dafa xaraam mooy cool cool dagan na mu ne ma waaw ma ne ko léegi déglu ma laayale biir mu ne ko ma ni ko te yow waykat nga ndax tey ku la jëlaloon grand bu jaas jasner mhm. ñu jël couleur yi nga xamante si mooy lobby LGBT mhm. yu ñu wax ni yii ay couleur góor jigéen la mhm. ñu ñawal la ko ba mu baax jox la ni la soloon ndax di nga sol mu ni ma déedéet ma ne ko ndax am na fu yàlla dee ci alxuraan ni couleur sàngam couleur sàngam ku ko sol góor jigéen nga mu ni ma déedéet ma ne ko pourtant ay nit ñoo ko taxaw porté ko bañ xam ni lii am na fu mbokk ma ne ko noonu nag la ay cóol amee foo xamante ni si nii foofu lañ ko boole ma ne ko waykatu musiciens yi ñoo la gën a siiw yow te ba léegi gisugoo ma def vidéo tudd leen ndax ñoom dañoo nekk ca lañ nekk loolu sama yoon nekku sax hmm. waaye lii nga xam ne ñoo ko moom muy suñu ndono di suñu héritage di ay tabala hmm. dinañ xeex ba képp koo xam ne yaa ngi jël lu ci bokkul hmm. loo xam ne si lu koy gàllankoor la am nañ fulla ak fayda buñ la ko mënul tere danañ koy dinañ la jéebaani ba ñëpp xam ne yow yaa nekku si dëgg waaye fi ñu moom muy njaasaan ku fa dugg ta nga andi fa loo xam ne méngoowul ak sarti dëkk ba dinañ ñëw nangu ko malgré ci gàmm gi au passage mooy nuyu soldaaru borom njaasaan yi liggéey nañ ci liggéey bu am solo ba képp koo xam ne daal ñëw nga njaasaan andi fa loo xam ne bokkul ci sarti kër gi fexe nañ ba jëlee ko fa macha allah. waaw loolu loolu am na solo. waaye eh, li ma ci doon wax mooy que ni est-ce que communication bi jàll na avant gàmmu gi wala déet. waa communication bi koy jàll weesul porte parole ñu def déclaration. di ah, gàmmu Ndiassane. Ah, ah. bi ñu def déclaration di wax gàmmu Ndiassane bis sàngam la. Mm. ci lañu wax ni gàmmu Ndiassane kat ku fi ñëw na nga andi ay tabala. Mm. mboolem presse ba fa ñëwoon jël nañ ko. Mm. télévision yu mag yi teg nañ ko RTS. information journal jàll na ba ñëpp xam ko ku fa ñëw rek da ngaa ñëw sa ñëwin ni daf maa neex ak ñàkk dégg kilifteef te nit nag bu ñëwee sa kilifa ba waxee ni nañ def nàngam yow nga ñàkk kilifteef ba ñëw ni lii nga bañ sa dëkk dama koy def say doomi dëkk wala say ndaw yi dëkk wala say taalibe yi dëkk dinañ am fulla ak fayda ba ñoom la seen kilifa bëgg danañ ko def moo tax mbooleem ko ko fa defoon fekk nañ la sa biir tànt jël la nga xamante si moom la ñu soxal suñu diggante ak yow mënoo ci dara te boo ci jéemoon dara ñu jëflante ko ak yow mm. waa mm. yéen waa kër Serigne xasida yomb tabala. 5000 mhm. lek boko amé légui di nga am sept téré seigne Touba. hmm yo xamni la. Mhm. pourquoi gisoo 000 ñu xam dem jël téré yoy non tok diko ko ñu leen wala ñu ci lu mhm. parce que si ko défé xamnañ la leen say fek lan vous moy mooy waa Touba dañoo xam sen sen si li yor moy lan. mais pour quelle raison nga gis ku borom baat bu neex waxuma Pape Bouna waaye ku mel ni Pape Bouna yor baatam bu neex mm-hmm. dem jël ay tëggkat yi sabaram jël ay juróom-ñetti nitam ñuy dem di te fu ñu tëgg duñ ñi Pape Bouna mii murid la wala Pape Bouna mii tijaan la dañ am xaadir yi ñoo doon sabaru place sàngam lan moo tax parce que ki bokk ci tarixa bi moo ko njëkk def mm-hmm. may fit keneen koo xam ne bokku ci ba tax moom mu ñëw di ko def mm-hmm. moo tax nag loolu nag dafay jeex quel que ak ku manti doon ak niveau ba man di toll ak lu la réew mi bëgg-bëgg koo ko ci def danañ dinañ ko jëflante ak yow jëflante ak yow ci wax waaye tamit danañ ko jëflante ak yow ci ak jëf loolu nag mbirum la leen la duñ ci wax waaye daal li ñuy wax mooy tabale yi den nañ ci suñu matukaay ndax Cheikh Abdou Khari Jilaani moo ni sama tarixa bii mm. tënkuwuma lu dul ci sunna sayyiduna Muhammad mm. ak ci farat ak yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax képp koo yàq rek di nga ko gis insha allah loolu day am solo ci li nga wax ndax ba ñuy tere Tuubaa jigéen a góor taxaw dafay indi ay tere dafa ñu suñ sooy bu ne ko dama bëgg dëkk bi ñu tere fi nangam ak nangam ak nangam suñ sooy bu dana ko da ngay indi sa doom bu jigéen indi sa doom ñu leen fi fii bi ren ji leen ñu xam ne képp koo def nii leen def suñu lan na mooy ko dogal bi ñoom jëluñ ko seen bopp avant ñeen di koy def ni leen maanaam mhm. suñ sooy bu xam ni seen wooyee suñ suñ mu rami mu koroog mu yaatal Touba mhm. raxas Touba def la fa nekk yëpp maanaam indi fa organisation xam mooy kat yi ku def ñuy te dëkk bi dañ la def nangam ak sangam sax. ñun de ñun de axlul kontiyu ñun ñun axlul kontiyu li nga wax sànq ni li ngay tere da koy jiital ci sa kër. Hmm. ñun yàlla dogal nañu sax ñi ñu gën a xam ñu ràññee leen ci kër gi xaaruñu leen ñu leen di tere. Hmm. mosuma gis mu yor ko. El Hadji Cheikh bu Diop mosuma gis mu yor ko. nga xam ni mooy leen missionnaire de borom Ndiassane. Hmm. moom xam na li mu yor. ndax li mu yor xam na fi mu ko yóbbu. ak fi mu ko fekkoon ak fi mu ko yóbbu. moo du ko fawee. mbooleem koo xam ne it ku bokk ci moom la. Hmm. fexe na ba encadré la xale yi may wax xam nañ si dara Pape Bouna mii di xale. Hmm. day tëgg ay waaye amul sañ-sañu jël ay cóol boole ko ciy tabalaam. te hmm. pourtant ma ko ko. lu tax parce que xam na ni lii suñuy kilifa bëgguñu ko. mais nag ñeneen ñi nga xam ni wax dëgg fa yàlla dama naan xawma dañoo ñàkk kilifteef wala ñàkk xam wala ñàkk jàng. mais nak nit dama ni bo demee ba am yow mi mbay bi nga paré bañ la nga nek animateur. Mhm. ñew nga ci kër gi ñun la kër gi sax yi li la. Mhm. ba tax nga xam ko tay diko doxal. Mhm. mais yow bu fekkee da nga obtenir ni man khadir la bëgg a doon. li nga wara a njëkk a charti tariqatul khadiriya ci walu wi man nek lan la ci borom teural surtout loolu. ah. surtout loolu sax. bu ko défé yow di nga mëna a xam fi ngay tek sa tank waaye bu fekkee ni yow da nga ñëw top sow bis bi comme ni ma ko folklore. yow ay tabal dangay nga gis koo xam ni jëyli rek lay teg ci kanam des bi yëpp ay coon lay doon léegi dem nañ ba dañuy jël sax ay góngolaa di ko boole ci biir tëggum tabala asiko ci biiri tabala batterie bi nga xam ne si nii moom la musiciens yi di yor ci biiri tabala te yooyu nëpp so sonorisation yëpp bokkoon na ci sonorisation yi nga xamante ni si ni euh, saytaane waxoon na ni ñoom lay xëccee samay nit mm-hmm. moo tax fu ñu ko àndee ci jotaay lu ni mel dootul doonante ay jaay ay mm-hmm. bàkkandi lay doon mm-hmm. da ngay gis jigéen ju jóge fële ñëw taxaw dugg ci biir géew bi sàllaat ni ku nu mu ko neexee góor jóge fële ne la sàllaat ni ci nu mu ko neexee yow jànkat bi nga naan toj naa fi ndax lan ndax fecc mi nit ñi di fecc nga hmm. naan tey moom yëngal naa ndax lan ndax fecc mi fa nit ñi di fecc nga jàpp ni loolu mooy yëngal déedéet li yëngal xolu doom li yëngal nit ñi mooy ci xol hmm. am na koo xam ne yaa ngi way mu ni teg sëgg nga jàpp ni faalewu la nga jàpp ni amul alal ju mu jox fekk na ay poosam fees na dell waaye maîtrise gu mu jógee ñëw jox la lu amul ndax xolam mooy laaj ndax li ngay wax ci biir xolam lay dugg mu koy yëg loolu moo taxoon ñu naan tariixa bi tariixa bi bu njëkk zikru ilaahi la tuddoon ñuy dem nag di wàcc ba Cheikh Abdou Khadre Jilaani moom moo ko moderniser daa ni tabala yi ñu doon dëggal sama maam yonent yàlla Muhammad waaye nañ ko andi boole ko ci tariixa bi waaye ñi siy bége waaye nag jaay yi léegi moom saay bokkut ak pàkkan yi fi nekk moom la Baye di wax naan la fi nekkoon. waaw ah. yi fi Sëñ Tuubaa bindoon bàyyi ko fi. Mhm. moo fi nekk ba léegi. Mhm. waaye ba ko dañ ne ko am jàng. Mhm. mag ñi do daan deew ndox ci sàkket yi. ak tuuroo ndox mu tàng ak taxaw ci ay kaw xal. waaye léegi dañ koy jàng ni taxaw di fecc. jeex mooy ca njàngin ma la. ca njàngin ma la waaye dara jugu fa. dara jugu fa li may jël firnde mooy que ni jàkka yi. ay baraag la woon de. yaa ngi may dégg bu baax ay baraak la woon waaye tey dañ koo tabax def ci ay kilim def ci moquette yu neex waaye teewul julli fu mu ne saar ba ñuy saar ba ñuy tari ci julli moom lañ tari ci jumaa ji kon kon li ñu wax ji mooy nit ñi ñoo soppeeku ñoo soppeeku waaye dara yi mag ñi soppeeku jeex na waaye nag ah, xam naa ni bu appel bi eh, appel yi njaga nag may avisé numéro bi rek mën a jël quelque appel bu mënee rek saa yi mu dugg xam naa ni woo ma si sama sama portable rek mu dugal ko insha allahu rabbi loolu la ci baax xam naa ni bàyyi bu naa moom mu def benn air bu gàtt rek Euh, nu nu nu kilifa gi noo ki waat tuuti da baax aja laay laay la laay laay la laay laay laay laay la la. laay eh, laay la la. Muhammadu Rasulullah. talube gi way sangam. tana ko Cheikh bu wàcc nga. laay laay la la. laay laay la la. laay laay la la. laay laay. te dem la wax sama ja seex bekaay nan ko dénk naa la ki jarama seex bu wàcc nga la la, la la dạ. la la la la, lay la la lay lay Sénégal maa ngi fent way te way ka góor gi mani rëy ku ko weddi def nga ay jarama cheikh bu wàcc nga la la la wa wa la la la la la la la ay waay maa ngi fent way wu rëy ci way ka góor gi may ku ko weddi def nga ay ne leen ko Cheikh bu wàcc nga laay laay la la waawaay laay la la laay laay la salaam ñu ngi siyaar baax a baax a baax a baax Eh, yàlla na yàlla nangu ziar yëpp ci àjjuma gi. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay. Mm, mm, mm. di leen sant di leen gërëm. ndeysaan ndeysaan. te di leen ñaanal eh, yàlla. seen eh, émission yi ngeen def yal na ko yàlla yokk. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. bi aussi yal na ko yàlla yokk def ko ay télé yu bëree bëree bëree bëree. amiin yaa rabbal aalamiin. si barka Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñun nag ñoo ngi kontaan lool lool lool si suñu invité yi nekk foofu muy suñu sëriñ sëñ Ahmed Kounta. ibnu sëñ Moustapha Kounta. Mm-hmm. ibnu Cheikh bu Bekaay. Mm-hmm. ibnu Cheikh al Bekaay ibnu Cheikh bu Mouhamed borom Ndiassane. ñun nag euh, taalibi lañ. Mm-hmm. wallaahi ñu ngi bokk ci daayiratul lansaar bu Tëngéej. foofu lañ bokk. waaw les sunu sëriñ boobu nag. ku bax la mom ak euh, ñaari rakam yoy mu nyari ñaari domam ñaari rakam yoy mu andal mm-hmm. muy euh, euh, señ buuna ak señ papa ñan mm-hmm. ñi tag rasulullah nek ay xale yo xamanteni ni ñoom ni seen wajur def mm-hmm. man kenn ki sax man may wajur muy papa ñan waye keneen ki keneen ki tamit pa buuna man nijaayam la ndax yaayam Cheikh Nabou sokay sama mag la waaw ñu nek ay xalé yo xamne nak xalé yu bëgg tarixa bi lañ xalé yu fonga tarixa bi xalé yu bëgg Ndiassane xale yu bëgg a waa Akhelokounta mm-hmm. comme ñi seen waajur yi ñun ñi ñu bëggee tarixa bi ñoom noonu lañ bëggee tarixa bi jàpp ko jàpp tarixa bi mm-hmm. waaw ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla yàlla wéral seen baat yàlla yokk leen suñu sëriñ boobu nag di sëñ Ahmed Kounta mm-hmm. moom aussi dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér amiin yaa rabbal aalamiin ndax euh, suñu rakk la suñu rakk la waaye suñu sëriñ la bëgg na bëgg nañu Mm-hmm. yiir nañu aar nañu. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw te fu mu toog rek mu waxtaan ak ñun ci mbirum diine ci mbirum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ak euh, kër gi mu bokk mi axlu kontuyu moom aussi ñu ngi koy ñaanal moom tamit yal na yàlla guddal fanam moom ak ay waajuram ak ay euh, waajuru ay magu papaam ak ay magam moom ak ay rakam yëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla yal na yàlla guddal seen fan ah, ci barka Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, waaw waaw ñu ngi leen di sant baax a baax a baax ñu ngi baax baax a baax waaw waaw boobu dañu doon waxtaan sànq ci ay règlement yoo xam ni moom lañ teg ci tabala yi. waaw waaw waaw. ko ci wàllu mhm. tool yi nga xam ni borom Ndiassa waa waa Ndiassa dañ koy tere. waaw ñu tey rek xam ni Sadio bi lañ bëgg a rafet ci taalibe mhm. ah, comme seen bi nanguwu ko te bëgg ko. waaw ñu wax taalibe yi rek looy wax taalibe yi ci loolu. Ah, waaw waaw dëgg la loolu dëgg la. Mhm. loolu dëgg la ci gàmmu gi rek ñu ngi doon sensibiliser nit ñi di leen ko wax. ndax euh, tabala dañ ne tabala sunu la. Hmm. waaw ndax euh, tabala. Hmm. bu ñu waxee tabala tabala lañ wax waaye waxuñu leneen luñ jël raxta ci biir. wax fa dëgg yàlla. Hmm. ndax euh, mag ñu dëkk ña ñetti tabala la naan teg di ko tëgg. waaw wér na kër maam Abdoulaye dëkk mooy sama maam. ma ngoog wallaahi al ñetti tabala la ñu daan teg di ko tëba teg benn tabala bu mag teg ñaari tabala yi ndaw. waaw kon nag tey bu ñu demee ba tabala ñu siy rax loo xam ne bokk ci. tamit la sëñ bi nga mbirum diine lu ci bokkul rek. waru cee bokk. waaye léegi eh, lu nekk ñu ngi koy def ci biir lu nekk ñu ngi koy rax ci biir. Mm-hmm, mm-hmm. waaw loolu nag wax fa dëgg yàlla sëñ si li ñuy wax noonu loolu dëgg la. Mm-hmm. waaw loolu dëgg la ndax eh, loo xamante ni daal day am lu muy eh, xajamal ci tarixa bi daal dañ ko war a simpi tekk na le su fekkee ne yow wax nga ne yow taalibi nga te taalibi nga bëgg doon daal yooyu daal warul am ci biir fa dëgg yàlla sëñ Ahmed moom li muy ñoom moom li muy kaas moom ak ñeneen ñi ma àndal ak ñun ak ñeneen ak ñeneen mm. li ñuy wax noonu yëpp loolu yëpp dëgg la mm. wallaahi lazim ku ko mën ku ko mën daal bàyyi waaw xam naa nag mënuñu ko tere kenn mënuñu dem kenn teg mu koy def ñu ñëw ne la bàyyi lii mm. waaw waaye daal dinañ ko wax ba ñëpp dégg ko waaw dañ ko wax ba ñépp dégg ko xam ne lii bëgguñu ko ci taraxa yi waaw waaw ñu ngi leen di gërëm nag di leen sant mm-hmm. li leen ci dolli rek mooy li eh, li Cheikh Rafal xam ne ndigal caabi la wallaahi bu manqué tuuti ah. boo ko jaawale yàq ngomb la wala wallaahi mu ngi noonu loolu la mooy jëfe li sëñ bi bëgg rek loolu kese la mbir mi loolu rek la te daa li mu bëgg nañ koo jëfee waaw mën a am ci digal yi ndax yaa jébal ne loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi wallaahi wallaahi mi ngi noonu nuy tere kon mu ngi noonu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tur bi nan la euh, tur bi Cheikh Ablaye Ndaw maa ngi bokk daayira Lone Sarr Ablaye Ndaw waaw siyaare bu baax a baax waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam naa ni waaw ma jox la sëñ bi macha allah sëñ Ablaye. waaw sëñ Ahmed. kontaan nañ bu baax a baax. waaw Kunta ñu ngi lay siyaar baax a baax a baax. jërëjëf yal na yàlla fay la yi. di la di la jox sa wàccuwaay. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di la wax ne la ñun yaakaaruñu gëmuñu kenn ku dul yéen yaakaaruñu kenn ku dul yéen. jërëjëf macha allah. ndax yéen seen maam mooy Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ñu nekk yéen ba jënnatul Ma'wa. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. incha allah bëggee nañ la lool lool la lool. jërëjëf jërëjëf ah. jërëjëf macha allah. jërëjëf loolu loolu am na faw nit ñi mën dugg ndax seede yi da koy da koy da koy da koy jar ndax ku mel ni xam naa ni li ñu mënta ubbi liñ bi rek moo moo téye bi waaye bu ñu ubboon ligne bi dina yaatu ndax xam naa ne ñi bëgg a dugg daan bari waaw waaye nag mu ngi sant bu baax a baax a baax a baax di wax ni dégg nañ ci njariñ euh, te njariñ lañ doon sàkku ci émission bi wax dëgg yàlla émission bi ñu koy def ñun njariñ lañ ci sàkku ndax man mi di wax ak yow yàlla dafa dogal ni ci maçon la yëngu waaye damaa dem ba gis ni tarixa yi joxuñu leen li ñu leen war a jox moo kan dinañ jox weeru koor lañ leen oo weeru koor la ñuy indi ku nekk def festival salaam ak lu ne xew ci weeru koor képp ma ne man a bàyyi fa la pour lu tax man maa dem ubbi benn def émission boo xam ne da ëttu ko sëñ ci lay indi chaque vendredi ñuy waxtaanee benn mag mm-hmm. lii moo ma dugal ci lii ma nekk ci di wax nag nga ñaan bu baax mu gën a yokk Ah, mu gën a yokk ba da lay fekk njaasaan sax toog ak yow ñu waxtaane ko muy journée boo xam ne ñu ñëw toog ak yow ñu waxtaane ko waaye nag dafa loo xam ne moom dama koy dégg mooy que ni bis bu war a taxaw fii ci Tëngéej te nga koy taxawee ak sa mag bis boobu nag bëgg nañ waa Tëngéej yëpp ñëw fa mhm. nga bëgg nañ tamit xam bis bi fan la nekkee mhm. pour waa Tëngéej ak ñëw bi ak ñi koo éviter ci bis bi macha allah bis bi sama mag moo koy taxawal. Hmm. muy euh, sëriñ Abdul Xaadir Kunta ibnu Cheikh bu Bekkaay. Hmm. moo koy taxawal di ko defal way juróom wu tedd wa hmm. nga xam ni dundam yëpp ci lislaam la ko jeexee. rawatina fii ci diwaanu Tëngéej. mu nekk loo xam ne si ni wax dëgg fa yàlla. képp kuy julli rek war nga ci am mbégte war nga ci am contentement bu baax a baax a baax a baax a mm-hmm. Mm-hmm. Euh, allah Abdou Khadir nak di taxawal mm-hmm. bes bi nek le premier novembre inshallah allah mu andi ko fi ci Tëngéej ñuko ko fi ci dangu fi nga xamanteni ci moy ci boulangerie Jibi Jaw ñi ci wo mbollem ko xamni ci ni talibé nga amul murit amul tidiane amul layen amul ñassène bi dal islam la Mm. képp ko képp koy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah mm. sëñ Abdou Xaadir bi nga lay woo ci bisu waajuram wu tedd woowu mm. nga xam ni mi ngi koy taxawal di ko jagleel maamam ja sëriñ Abdourahman nga xam ni dundam yépp ci lislaam la ko jeexal dundam lépp ci waa Tëngéej bañ na ko ba waa Tëngéej ñoo ko féetewu moo tax mu jëlee ko Njaasaan andi ko fii ci Tëngéej ngir ànd ceeg taalibe yi bëgg ak cofeel gi nga xamante si am nañ ko ci way juróom ba macha allah ñu si woo ñëpp si am. le premier moom nga lay tombé xalaat. vendredi lay tombé incha allah vendredi kon xam naa ne. émission bii di ñëw lay moom. waaw mu ngi koy defee def émission bi rek képp koo xam ne rek bëgg nga seen fekk ñu Dangu. incha allah incha allah baax. ñu waxal loolu ginnaaw sëñ bi moom mooy tëj mooy. Ah? Pape. neel sam ñu ñu ngi di kontaan lool dëgg yàlla siri sëriñ am daanaka hmm. matale na lépp daanaka daanaka li waxtaane borom njaasaan xajul sax ci ci nafan benn fan xajul ci ay at hmm. lay ndeysaan hmm. ñu ñu ñu ngi bég lool dëgg yàlla bu ko defee dama ñaan way borom lu gàtt rek jox sëriñ am xanaa ginnaaw boobu euh, di wax ni rek yow ba foo toll ak projet yooyu waaw ñun ñu ngi ci. Hmm. ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi jàng sunuy programme hmm. ñu ngi ci li ñu nekk aussi. maa def nga kaset. non defaguma kaset nag waaye ma maa ngi ci yoon bi. waaye waa Fass nag di di ci xaar ndigal ndigalu kilifa yi rek. incha allah bu buñ ko jotee rek. Hmm. dinañ dugal studio. waaye li ñu war a incha allah. ginnaaw ku bëgg am sa numéro ñu def. ah sama numéro mi ngi noonu. da ngay def naan ma xam naa ni paa bi ne ci salle bi te portable bi sori ko. Ah. mu yónni ko mu dugg ci néeg bi indi ko indi ko dugal ak fooy rek. ndax paa mu waa joxe numéro am. d' accord bisimilah. sama numéro mooy 77. 845. 67. 65. damay jàng ngénte. Mhm. damay jàng mariage. Mhm. gàmmu sax dañ koy jàng incha allah. dem nga bitim réew jàngi wala ci biir réew maa ngi Sénégal incha allah bëgg nañ wër àdduna wër ngër këpp mhm. Amérique. Europe Asie Océanie yi. dem nañ ba ci maamu Serigne Ahmed mi dagaan ko loolu. te gëm naa ni dina am incha allah. incha allah gëm nañ ko lool. xam naa ne nga def benn de parce que baax Diouf lay bu baax a baax. yow kii sama waay yi. suma rakk la man musuma xam ni saa yi daa mën a waaj. kii suma rakk la. oh ba ma dalee jàng ba tey. moo may aaw. saa yi mosuma xam ni mën na oy. wallaay ndeysaan way la man. kon baax na xam naa ni. sama rakk du suur rek nga ñëw fi. incha allah incha allah du fuufi waaw mu def yu yaatu rek incha allah. léegi xam euh, mu neex te gàtt. Cheikh bu Kunta Ndiassane yaay donoy bu naa ma. la ilaha la asaane yaay no nay mu naama def leen nii la ilaha illallah sidina rasulullah Cheikh Koukoulou te njaasa yaay no nay mu naama la ilaha illallah waaw waaw sidina rasulullah la ilaha illallah ne yaay doon nuyu naama. ay waay benn bis dama toog. waaw sama yaram wi dis lool. ay la la bu ko bëggee la may gaañ. ngir doon nuyu naama. la ilaha illallah. waaw waaw. Seydina Rasul. la ilaha illallah. saane yaay doonay bu nama ndeysaan képp kuy waliyo waliyo nangul naa la sa tumba gannaaw ba jaayane te naa doonay maam bu lama la ilaha illallah waaw waaw sidina rasul la ilaha illallah saane yaay doonay bu naa sama yaay jaarama ajaana lay lay la la tajaasane yaay doon nay bu nama mbay xin yaa bëgg mam Cheikh Fall waaw yaa ngir rasulullah na jajeeg rasulullah ngir doon nay bu nama la ilaha illallah waaw Sayyidina Rasul lai lai la la Kukul dan jasane ya dona ibu nama Wow Wow wow wow Senegal def mi Jofil gangi mai gan ngir dona ibu nama sering si pula jok jox waaw waaw man duma toñ wali yu mu lor ma mu lor ma waane bu ñëpp defoon rankar ma donoy bu naa ma yaay sama péete sëriñ si ñëpp laa jox wormaal. wormaal. man du ma toj wali nah, yu mu lormaay. mbay waaye bu ñëpp defoon rankar maa. bu may. sama pété. Assalamualaikum wa rahmatullah. xam Allah ni rek dañuy dañuy émission bi day toll ci jeex. te yàlla dafa def ni bëgguñu mu jeex. ndax euh, fi mu ne fi mu neexee yaram yi tànge fi la émission bi ndeysaan li ñu mën ci waxtu daanaka mu koy jege te wax dëgg yàlla man day wax wax dëgg yàlla mën naa toog féetewoo déglu képp ndax sëriñ bi li muy wax wér na te am na solo te xam naa ni képp koo xam ne jaar nga fii ñu bëgg mu jaar nga bëgg mu jaar fi wallahi ndoo am dalay gàllankoor te euh, li ñuy wax rek jëfe ndigal daa am solo lool. waaw walaay billaahi de bëgguñu woon sax daa rek émission bi jeex ndax am nañ ci yéeg lool di ziare pa moom di wax ni yow moom sa bés dalay xaar fii yaa ko moom ak heure bu mu la neexee. incha allah heure bu mu la neexee rek nga ñëw fii. incha allah incha allahu rabbi ñëw rek ñu def émission boo xam ni moom. ndeysaan xam naa ne rek wax sëñ bi lu muy tàggoo rek euh, mu tàggoo te ñaanal mbooloo mi incha allah. macha allah Mbaye mhm. ñuy. Euh, amaan mbégte bu baax ak contentement ci invitation bi ñu invité waaye ñuy nuyu bu baax ak di ziar sama xarit sama lépp muy Cheikh Abdoul Khadri Jeylaani Kunta ñu koy wax sëriñ jamono Cheikh Jeyli Kunta ma koy nuyu bu baax doomu sëriñ Mouhammad ñu koy ñu koy ñu koy nuyu bu baax Cheikh Cheikh Cheikh Abdoul Khadri doomu sëriñ xalifa ma koy nuyu bu baax macha allah waaye tamit di nuyu sama jigéen yu baax yooyu nga xam ni fu ma dem danaa leen tudd muy soxna Mami Fay Rasoul nga xamni dafa jël mbiram yépp denk ko Allah Muhammad Nek soxna ci serigne Muhammad hein waye di nuyu bu baax soxna Fatou fay Rasoul di diko nuyu mom tamit di ziar ziar sha allah ak soxna Khady mbake ah di nuyu bu baaxa baaxa baaxa baax sama xarit nak muy soxna Adja nga xamni bokk ne ci ki nga xamante ni moñu andi fi si jotay bi momtamin tamit ñukay eh, sante ah diko diko di di gërëm bu baaxa baaxa baaxa baax ak mbooleem koo xam ne si nii rek mi ngi ñuy euh, seetaan di ñuy bàyyi xel bu baax a baax am nañ ci ñëpp mbégte waaye tamit di sant waa Daara Lansar waa Daara Lansar ñu leen di sant di leen gërëm waaye di nuyu di ziar sama jigéen boobu nekk fële ca Kër Massar hmm, muy soxna Aji ma koy ma koy ma koy nuyu bu baax di ko di ko ziar macha allah ah, mm, di ziar képp koo xam ne rek yaa ngi bëggee ahlul kunti yu waaye képp koo xam ne si yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah di nuyu di ziar bu baax sama jigéenu bopp it nga xam ne si mooy soxna mari soxna Marie Texera nga xam ne ndeysaan ñu ngi bokk ci diine yonti yàlla Yeesa waaye moom it ku may béggee la ku may bàyyi xel la macha allah di nuyu xale yi ma àndal ci disponibilité bi ñu nekk muy Pape Bouna ah, ak eh, ki nga xamante ne si ni mooy rakkam di leen ñaanal yàlla yoon wi ñu nekk yàlla na yàlla defal leen ci jàmm waaye tamit di nuyu mbooleem animateur boo xamante ne si ni yaa ngi fii ci Galaxy TV yeneen yàlla télé bi yàlla na ko yàlla yokk yàlla na leen ñëpp dégg fépp nag bi jaay yonent bi lépp lu borom tele di am wala fépp fu tele di àgg rek yàlla ngeen fa àgg yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def bi jaay cheikh abdul xaadir jeylaani yaa allah yaa allah yaa man li aybi shaatiran sultaanin kulli awliyaahi cheikh abdul xaadir jeylaani jërëjëf waaw xam naa ni njaga rek foofu ñu jaare di wax alhamdulilah inna walilah borom Tuubaa di siyaar mbokk taal bi jox dig daje nag vendredi incha allah rabbi xam naa ne émission bi ñu koy defee ci dàngu ci jagu cant gu mag googu dem ci dangu inshallah ah xamna ni fay def émission bi incha allahu rabbi jërëjëf jaajëfati jërëjëfati. am fa babal muriti may sa bige kumba fal amat faal sayar njaay innakal kamal xatuxtari njaay